cay tudd bu baax a baax ay koppar yoo xam ne rek dañu ko luubal rapport OFNAC nag fësal ay trafic yoo xam bi nag fësal doxalin bu doy xam ne rek doon jëm ci yorin wu bon wi nga xam ne rek moom la ñu yoree woon traitement bi ñu doon amal jëmale ko ci PCA bu ASER mi nga xam ne rek doon na jot lu toll ci cent quarante huit millions écart yi nga xam ne rek doon na am ci recette yi nga xam ne rek moo tukkee ci industrie extractive yi bés bi le jour dellu soit ci rapport OFNAC ak bu Cour des comptes ne jamono ji kay yi gën a faar ñi ngi génn Prodac bu Mambay ñaa nag mi ngi doon traîner ak contrat bu Green 2000 Pape Malick Ndour nag kaala moom itam bu Cour des comptes war a lijjanti dem dikk bi maître Moussa Diop moom yoo xam ne rek doon na ko amal ci doxalinam OFNAC moom yi nga facturation yi nga xam ne rek moom la ñuy amalee dialyse enquête yëglikaay ci rapport yi nga xam ne rek ko mu soxal Prodac ak Cour yi nga xam ne moo am ci atum 2018 2019 2020 jàpp 2021 yéenekaay bi dellu soir ci naka la état bu Sénégal daan liggéey ak lu jëm ci cumul yi nga xam ne rek doon nañ ko amal ci njëndum oto yi les éco yëglekaay daal koy feelu ne rapport Prodac moom mooy scandale bi nga xam ne rek du ma sa jeex mukk yéenekaay bi dellu soir na ci mbuxum yi nga xam ne rek am na ci ko koppar yi nga xam ne rek moom lañ doon jëfandikoo ca ana ak ca anamo loolee lépp rapport bi daal koy fësal mu ne ay manquement à gogo moom la ñu nemmeeku ca anamo mën nañ caa jàpp nag lu jëm ci défaut d'enregistrement yi nga xam ne rek moo soxla recettes yi daan bàyyeekoo ci entreprise extractive yi DG bu ana di Mamadou Djigo daan jëfandikoo ay crédit d'investissement di ko dugal ci ay charges de fonctionnement le quotidien yëglekaay daal di dellu siwaat ci ñaawteef moo gën a rëy te rapport bu OFNAC ak bu Cour des comptes koy fësal te li te gën a fës nag bokk na ci ay manquement yoo xam ne rek nemmeeku nañ ko ci marché public yu Prodac fi nekkoon DG bu 3D yéenekaay bi nag ne épingle nañu ko ndax jënd woto boo xam ne rek toll na ci 83 millions l'info yëglekaay ne jamono ci kay nak waa Cour des comptes ñu ngay génnee mbóot yi nekkoon ci placard yi tribune yëglekaay feelu ko ne président Bassirou Diomaye Faye nag moom la ñuy xaar rek mu daal di àddu jëmale ci ñeen fukki dossiers yi nga xam ne rek waa Cour des comptes ak waa OFNAC teg ko ci taabal ji mu bokk ci mbirum escroquerie wàllum détournement de deniers publics yoo xam rek nemmeeku nañ ko ci libération moom it taxaw seetlu ci dépense yi nga xam ne rek moo jëm ci suñuy recette minière état bi fi nekkoon doon ko paccoo ci seen biir bokk na ci ay indemnité yoo xam ne rek dañu ko doon dajalee mu toll ci deux cent vingt quatre milliards yoo xam ne rek dañu ko doon jébbal ay agent yu état bi ak yu autorité ci diggante deux mille quinze jàpp deux mille dix huit ay agent yoo xam ne dañ doon am ay logement administratif ak ay dàmpaay yéenekaay bi ne am na ci agents yoo xam ne rek ñaari salaire lañ doon am ca ministère de la santé lu jëm ci wàllu Prodac ay paiement yoo xam ne rek toll na ci treize virgule huit milliards yoo xam ne rek daat nañ koy retracé ci seen ay compte de dépôt maire bu Médina Bamba Fall mi nga xam ne rek moom da doon jënd ay denrées alimentaires yoo xam ne rek kenn du xam fu mu koy dugal maire bu Parcelles Assainies mu di Moussa Sy moom jëndoon fi ay dàll quinze mille francs ci atum deux mille quinze mu jëntal gi mu doon cent cinquante mille ci atum deux mille dix sept addu jëmale ci beneen yëglekaay mu di L'As Quotidien xëyee tey jii ci tukki ne meeku bi nga xam ne rek njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ngi door a jamono ji nag Diomaye yi ma ngay fësal scandale yi nga xam ne rek régime bi fi nekkoon amal na ko ci wàllu suuf si Vox Populi ne ginnaaw décision bi nga xam ne rek jël na ko ci opération domaniale yi nga moo jëm ci mbirum foncier moom jiitu réew mi nag démb demoon na Thiès ngir xool tolluwaayu mbuurkaat ak ni nga xam ne rek noonu la fi régime bi fi nekkoon doon caxat-caxatee suuf sa point actifeelu ko ne mu toll nii kay président Diomaye Faye nag naqar xool dëggantaan la jëlee ca mbuurkaat ndax la mu fa am ñoo xam ne rek jox nañu leen fa lu toll ci deux cent hectares ne bokk na ci ñi nga xam ne rek ñoom la ñu jébbal yooyee hectare Dakar mu di ay président d' institution ay ministre directeur généraux ay député PCA guide religieux ak ñeneen ak ñeneen vingt 24 heures yëglekaay na jamono ji nag ca mbuurkaat nag lépp loo xam ne rek mooy ay liggéey ñu fa doon amal njiitu mi sàkk nañu daal di koy dakkal l' observateur na tukki nemmeeku bi nga xam ne rek moom président Diomaye doon na ko amalee ca mbuurkaat nag jamono ji nag fas yéene naa amal ab guerre bu méttee métti ci ñooñee nga xam ne rek ñu ngi leen cay tudd Sud Quotidien la ñuy àddu jëmale moom ci wàllu dund gu cher gi ak sàmmonteeg accord yi nga xam ne rek moom la ñu xaatim yokku seeni condition de travail saytuwaat lu jëm ci wàllu salaire yi loolee mooy yuuxu yi nga xam ne rek liggéeykat yi yuuxu nañu ko démb ci kanamu président Bassirou Diomaye fay njiitu réew mi nag ci jamono ji ma ngay dalal seenum xel nag jëm ci centrale syndicale yi nga xam ne rek def nañu ab mobilisation démb ci premier mai bi le mooy moo yëglekaay ne président Bassirou Diomaye fay kay nag ma ngay sàkku ñu indiwaat ay réforme jëm ci code du travail inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Gaston Mbengue wuy ji na boromam yéene kaay yu bëree bëri dellu soit si na làmb ji jamono ji nag sëngéem